kon ki ñu fas yéene waxtaane di borom dërëm ak ngërëm Cheikh Sidil Maxtaar di maam Cheikh Anta borom gaawaan moom ni ma ko waxee mbokki sëriñ bi moom la ci sunu borom nattoo nasaraan yi def ko ni ñu defoon sëriñ bi te mooy jële ko fii yóbbu ko Ségou ca Mali ci kaw ay complot ak ay tappale yoo xamante ni Blaise Diagne gisoon na ni maam Cheikh Anta du juuf la gën a féeteel tax ñu comploté ba yóbbu ko Ségou ngir mu war foon faa def diiru fukki at nga xamante ni Ndar lañu ko yóbbu def ko fa résidence surveillée diiru juróom-ñetti weer doog ko fa jële yóbbu ko ségu incha allah bi ci chapitre yi ñëw danañu leen ko leeral ci bari ci ay document tappale ya kompaloo ba fa ñu jaar ba yóbbu ko ségu waaye moom Serigne Touba daf ko waajaloon jote bi nga xamante ni jote na ko wala boog pexe mi nga xamante ni ñoom nasaraan yi fexeel nañ ko ko Serigne Touba da ko teeloon a xam ndax en 1883 bi seen waajur sëñ Mor Anta Sali ñibbee àjjana xam ngeen ni sëriñ Touba ànd na ak borom Darou Mouhty dem Ndar ci El Hadji Ousmane Camara te ñu gën koo xam ci turu. maam as kamara ngir doon fa yeesal wirdu xaadir ngir bañ a guddal sëriñ bi ba muy dem yóbbuwaale na junnib ngurdu ànd ak borom darul moxti mu sant ko ba ñu demee yàgg nañ fa lool ba sëriñ bi bëggoon a jàll guddi gi mu woo borom darul moxti ni ko dama bëgg bu subaa ndagam li ñu fi doon jot wut si jotuñu ci nu jàll ba ñu xëyee sëñ as kamara daf ni sëriñ bi yow day gis naa la bi ngay bëgg a jàll te yow yaa war a ràmm soodaan di sow jant kon bul jàll dellul mbàkke sëñ Musaa Ka nee ko ni gis naa la ngay bëgg a dem ba penku te soodaan saxal fi mbàkke sëñ Musaa na mu daal di jox sëriñ bi werd wa yeesal ko ko jox ko malaanum Cheikh Abdul Xaadir Jilaani ak jàkk wa kurus ga sëñ Moussa nee na bi sëriñ bi dellu see Mbàkke Kajoor malaat ma daf ko jox sëriñ tam Abdourahman Lo ngir mu dogal ko ko turki ak tubéy ba mu ko ko dogalee maanaam ñawal ko ko man na ni génération bi du ñu xam dog waaye mu ñawal ko sëriñ bi turki ak tubéy sëñ Moussa ka nee na bi ko sëñ Dame Abdourahman di ñëw puso bu mu ci jam ci ndimali ci malaan mi ay alxuraan lay jàng noonu la ko ñëwee ba mu yàgg la desoon ca malaan ma nag sëriñ bi daal di koy jël ñi maam Cheikh am lii des ci malaan bi nga barkeeloo ko ndax bisa ngi ñëw kët noon yi di nasaraan bi dinañu am lu ñu seq ak yow sëñ Moussa Ka nee na malaat ma ba ko ñawloo la ca desoon mu ni la ca desoon ci malaan mi mu jox ko maam Cheikh Anta ni ko nga barkeeloo ko yaa dib jant bis booy dajeeg tubaab bi yóbbuloo ko ba Cheikh di dem Ségou mu far lamboo ko kon en 1883 le Serigne Touba xamoon ni maam Cheikh Anta noon yi danañu ko jéemal waaye boobe la faggu jël desu malaan ma jox ko sëñ mu Ka nee na ba muy dem Ségou def ko yóbbaale waaye fukki at yañ waxoon ni moom lañ ko fay téye defu ko fa ñeenti at rek la fa def jëllu siwaat Sénégal danañu ci ñëw ci Euh, épisodes yi nekk ci kanam jëmm jooju nag di maam Cheikh Anta teraanga ji ko sunu borom joxoon Sëriñ Tuubaa defoon ko euh, buurub jullit sëriñ bi moom moo féetewoo nattu yi maam Cheikh Anta féetewoo xéewal waaye nag dafa am lu sëriñ Moussa Ka wax sëriñ Moussa Ka def ni kunde nu saayir war a ñedd baatin ndax zahir balaa mën a taxaw am baatin lam ca bëgg wax mooy maam Cheikh Anta lii ko Sëriñ Tuubaa féetalee te mooy zahir si teraanga ji ak barke bi faawu nag ñu cofal ko ci baatin ba nga xamante ni mooy nattu ya ndax kundanu zahir war a ñedd baatin maanaam bi ko seriñ bi féetalee xéewal yi muy zahir si baatin bi nga xamante ni bi moom ay nattoog ay ay ay ay ay déporteeg ay yu metti la moom daf caa mos ñëdd xam nga ndab looy eh, tiim di xéewlu di tibb di sax bokkul ak ndab loo xamante ni dañ caa xéewlu ba mu des nga ñëw ñedd ko ci sa baaraam ñam ko moo tax sëñ Moussa Ka ni ko kundanu zahir nag war a ñedd baatin kon euh, nattu yi ko dal euh, lu mu ñëdd la ci nattuy sëriñ tuubaay yooye nga xamante ni bii moo taxoon ñu génne koom réewam yóbbu ko Gabon mu ñëw yóbbu ko gànnaar yóbbu ko Ceyeen Jolof jële ko fa yóbbu ko njaareem maanaam fanweeri at ak ñaar wala fanweeri at ak ñett yoo xamante ni dañ koo tàggaleeg ak njabootam kon loole ci la maam Cheikh Anta ñedd ba ñu moom it déporté ko yóbbu ko Ségou ca Mali moom nag nasaraan bi def koo tegoon bët te loolu mu ngi tàmbali en 1903 bi serigne bi baye ko gabang ba delu ci te nek darul manan gi nek digeunte Touba ak Mbacké te gouverneur Merlin di ko woolu yónni fa mbaaxaan doomi Lat Joor bi gantal mu yoni fo ma Abdoulou serigne bi gantal mu yoni fo l'administrateur de tiawon serigne bi gantal nga xamni dañu muju l'administrateur de Thiès di commandant Thiès mu ñew wo si serigne bi waaye ndaw yooyu yëpp ku ci ñëw sëriñ bi daf lay xamal ni leen bu ngeen demee ne leen ko buur benn laa ci xam mu yàlla addina bi ak poñoxtit mi nekk ci biir soxlawuma ci lu may fu ma mën a lal sama der bii ngir jaamu yàlla loolu nag moo metti woon tubaab yi ba l'administrateur de Tivaouane Alice euh, fexe woon ba am autorisation ci gouverneur Merlin ngir waajal xare boo xamante ni bii ñaar téeméeri soldaar la woon euh, 150 tirailleurs sénégalais avec 50 espaces. Nous ku ci nek ñu 100 cartouches 20 000 cartouches ñu bayiko le 10 juin tiwa won ngir songu ci darul nous euh li ci seigne touba don doxlo mam cheikh ante nak mo taxone alice mereko ba tuddé mam cheikh l'éternel agitateur du bol kon bobé lañu ko tambalé xex bobe lañu tàmbalee fexeel